Ndao nuyu jërëjëf maa ngi lay fay di la ziar di la safoo tey nuyu toute la presse di wax asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. maa ngi am kontaan ci yéen di am mbégte ci yéen di am xol bu sedd lool ci sama jàkkaarloowaat ak yéen. di leen wax ni bëgg naa sama xol sedd na mag yéen benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ndax Omaro yaakaar naa ne kenn mëntu ko génnee ci presse ndax 10 ans de carrière du ay caaxaan lépp ci presse laa ko def kon alhamdulilah bi nu yàlla boole ñu jotawaat tey. war a waxtaan waxtaan bu am solo maa ngi leen sant maa ngi leen gërëm di jéggulu aussi ci retard bi waral ma guddee ñëw dama jugee aéroport rek ñëw ci yéen waaye embouteillage bi amoon ci péage bi moo ko waral ñoo ngi koy jégalu ñoo ngi tuub tey jégalu. Mhm. bisimilah. Euh, ci biir loolu tey nga daal di jóge voyage. Ah. daal di def tournée ak ah, gis nañu nga njëkkee li nga xam ne moo di Angleterre jóge fa ah, dem Paris daal di fa jóge daal di ñëw. mën nañu xam exactement tey lan moo waral nga woo fi bi ak vente bi fan la toll. jërëjëf. kontaan naa ci question boobu waaye balaa maa ñëw ci loolu damay ñëw ci hommage boo xam ne tey dama koy rendre jëmee ci ñaari jëmm yu génn àddina yàlla na suuf sedd ci seen kaw ak génn jëmm gu fi des ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér li tax nag ñu leen rendre hommage mooy ñoom ñett ñëpp tey ki war a sama toogaay fii ak ki waral sama kàddu ak ki waral sama taxawaay ak ki ma yóbbu woon bitim réew ma ànd ak moom def liggéey boo am solo boobu ma def ba dellu siwaat di président Waly Ballago Seck son excellence Euh, baayam di Thione Ballago Seck dafa def liggéey bu am solo ci jëmmam waaye def ay valeur ci jëmmam waaye amit lu mu def ci moom ci wàllu liggéey jëme ci carrière kon tey bu président génnee album international fekk fi Papa sama yaram daw sama xel daw ma jël samay responsabilité dem ba fan ak taxaw jënd CD ne jëndal naa ko Papa loolu yaakaar naa ne li ma war a def rek laa def CD bi ma jëndal Papa nag di ko ci rendre hommage dama koy jox xaritam rakkam doomi ndeyam yuusu maa jigéen nduur laa ko jébbal li waral ma ko jébbal yuusu parce que ñun biñ juddoo léegi yàggul waaye xam na nu kóllëre ak ànd wu rafet bi dox ci diggante yuusu mari seen ak con balaagu sekk kon tey loo war a jébbal conte newu fi boo ko joxee yuusu mel na ni yegg na moo waral album bi nga xam ne jëndal naa ko papa Thion ma di ko jébbal ki nga xam ne mooy Youssou maa jigéen Ndour ma gindaat ci beneen album di ci rendre hommage Moumi Dani album yaa ngi nii I wanna be free ñett CD la benn bi ma jébbal ko Papa Thione Youssou koy nangu waaye beneen bi ñu jéggal ko ki nga xam ne mooy Moumi Dani mi fi jóge barki Demba Ndiaye te suuf sax tubarkalla seddagul ci kawam ndax ñu ngi koy jooy ba léegi te noppeeguñu ma ko jébbal ki nga xam ne mooy borom këram di léppam di Bougane Gueye Dani Bougane ñu ngi lay jaale si soxna si te di la ñaanal yàlla na saraxam yàgg ci sa loxo yàlla sàmmal la njaboot bi ngeen sëkk ba li nga ci yéene yëpp yàlla defal la ko incha allah ñetteelu CD bi nag dama ci rendre hommage koo xam ne tey waxuma la waali waaye bàyyi waali la daan jàppale ci wàllu aar ak ci wàllu showbiz a ci wàllu caada ak cosaan ay bàyyi waali ku ci mel ni papa Youssou Ndour papa Thione papa Oumar papa Baba Maal papa Ismaïla kii ma gëndal ñetteelu CD bi di ko ci rendre hommage di El Hadj Ibrahima Ndiaye origine SA studio 2000 dafa def liggéey bu am solo fii ci réewu Sénégal ci wàllu culture. waaye def ko ci wàllu caada ak cosaan waaye def ko ci wàllu showbiz waral tey mënatoo wax musique sénégalaise te doo rafet njot ci ni base bi El Hadj Ibrahima Ndiaye la ndax ba benn studio amulee ba artistes yi war a mën a produire di génnee luy wasaare seen musique ak seen way El Hadj Ibrahima ko def ba tey ñu mën a wàññi ay téeméeri téeméeri studio ba bopp koñ boo jàdd tey fekk fa studio ba mu metti moom rek la woon Ndiaye moo waral ñu rendre ko ci hommage jébbal ko li nga xam ne mooy troisième CD maa fi damay ñëw ci li nga xam ne mooy fi vente bi toll vente bi fi mu tollu mbégte la kontante la xol bu sedd guy la diggante le 6 octobre ak tey li génn ci ay CD au niveau national ak international kenn mënu ko wàññi waaye yi nga xam ne tey FNAC jël na ci ay responsabilités ne yii artistes internationaux seeni album man maa koy jaay président balaa Ballago Seck moo fa jël deuxième meilleure vente Fnac meilleure vente Fnac à partir du 6 jusqu'à maintenant 19 président Waly Balago Seck moo jël deuxième loolu nag day wane ni album bi africain yi sénégalais yi gambien yi monde entier ñoo ko bëgg ñoo daw sëkkatoo ko ñoo daw jëli ko waaye ñoo daw jënd ji ko boo demee tey génn Fnac ci vente bi nga tàbbi fi nga xam ne mooy top 100 ci Amérique Waly mi ngi fa jël li nga xam ne mooy quarante neuf quarante neuvième position ci ñi nga xam ne tey ñoom la ñuy gën a déglu ci wàllu plateforme yi nga xam ne à travers le monde ci la ñuy dégloo way yi nga xam ne moom la ñuy jënd ci internet bi président Wally Ballago Seck mi ngi fa jël quarante neuvième mu nekk loo xam ne ca la sac la ndam la ci képp kuy sénégalais nga am ci ndam am ci xol bu sedd am ci kontante waaye fierté la fierté goo xam ne tey képp kuy waykat kuy yeewoo Sénégal tey war ngaa yëg sa bopp ci xam ne sa doomi réew mi sagal na la ma bëgg nag yee sénégalais yi ci benn pàcc mooy nanu bàyyi bu sunu naw la jugee ci réew mi dem bitim réew war a jëli raaya ñuy gis jëmmam waa dama ne bu ñu nekkee Sénégal nañuy gisante ci sunu biir amul problème na Modou yi gis Samba Samba yi gis Demba Demba yi gis Paate Paate yi gis Modou Modou yi gis Assane mais bu ñu xasee ba sorti internationale am ku génn ci ñun réew la représenté ku génn ci ñun rek drapo la représenté ku génn ci ñun rek askan la représenté kon nañ leen di dooleel nañ leen di sargal nañ leen di siggil loolu nag mbégte lañ ci am parce que sénégalais yi Faramareen yi wanuñu waali ginnaaw benn yoon cofuñu ko benn yoon néewuluñ ko doole benn yoon seetaanuñ ko benn yoon streaming bi boo duggee ci réseau yi nga dugg ci site internet bi ñii jënd tey par carte ëpp nañu vingt fois ñi nga xam ne ñi ngi jënd CD physique te streaming bi nga xam ne mi ngi am tey ci réseaux sociaux yi day compter day bokk ci li nga xam ne tey day jur disque d'or day jur disque platine boo demee ci seen YouTube yi seetaan gi ngay seetaan album bi ci seen YouTube di amee di partagé vue yooyu muy am day bokk tey ci li nga xam ne tubaab bi daf koy wañ jëmee ci li nga xamante ne moo war a indi disque d'or wala disque platine te yooyu yëpp sénégalais yi bàyyiwuñ ko ginnaaw faramareen yi bàyyiwuñ ko ginnaaw africains bàyyi bàyyiwuñ ko ginnaaw kon li ma leen bëgg a dénk rek mooy la presse sénégalaise ngeen xam ne vente bi moom tubarkalla macha allah mi ngi dox bu baax a baax a baax a baax a baax li tubaab bi njëkk a génnee muy cinquante pour cent bi jaay nañ ko ci trois jours vendredi le six la ko génnee mardi le dix CD amatul France man dama obligé ñëw jàkkaarloo président Wade ne ko dinaa am gàcce parce que maa ngi dem Angleterre jël fa ay précommande jàmbur jël fa ay xaalis jàmbur plus de vingt millions CFA jël naa ko fa ci ay xaalis CD te gisatuma CD nu may def président rek ci alalu boppam trois mille euros deux millions CFA na ma maa la ko may di France nga jënd ci ay billet foo dem boo guddee nga jël ci hôtel nga fanaan nga wëral gàmbi yeey seeni i ngir jébbal leen ko ndax mooy sa sak te mooy sama sak damaa obligé di topp dëkk yi Nantes Nice Marseille euh, euh, Strasbourg Monaco tubarkàll ba ba fi nga xam ne mooy Lyon bàyyi mu benn dëkk fu ci nekk dem naa ci fanag yi ak cultura yi ngir récupérer fa li nga xam ne mooy ay CD ngir jébbal ko ñi nga xam ne ñooy waa Gambia people kon vant bi dalal leen seen xel ci ni mi ngi dox bu baax a baax a baax a baax a baax te kanam la jëm. donc mën nañ am yaakaar. waaw euh, pirate moom ñun fii lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi pirate ñun fii lañ ko fekk. fii lañ koy bàyyi waaye ñun amuñu ci tiitaange ñun ñi ànd ak njabootu président balaa Ballago Seck suñu yoon newul ci pirate parce que xam na ñu ñu ko sëkkal muy suñuy soppe xam na ñu ñu ko sëkkal ñuy askanu Sénégal xam na ñu ñu ko sëkkal ñuy faramaareen yi faramaareen yi yàllaa leen nattu ci bëgg ak cofeel ak yëg ak fonk jëme ci président Waly Ballago Seck ñooñu tal nañu leneen lu dul di jënd CD 500 ak CD 1000 francs gàcce ci ñoom rus nañu ko parce que xam nañu ne du lii mooy jàppale seen artiste yeew nañ ci kon ñun wàllu pirate yooyu fii la coow li amee Sénégal waaye ñun ñu newoon foofa bitim réew jàkkaarloog tubaab bi ne ci liggéey bi duñ toog ba waxtaane wàllu pirate parce que xam nañu ne ñu ñu bëgg dana jënd CD original bi mhm. muy CD physique bi nga xam ne moom laa téye nii. bu ñu su niveau su euh, mhm. bi nga xamante ne dafa am li nga xam ne moom ay pirate pirate. Mhm. Euh, wàllum disque bu fekkee ni tey moom nga bëgg. bu amee ay pirate mën nga ko bañ a am. ñu bëri jàpp ne stratégie la boo teg lan ngay tontu ci loolu. Euh, li ma ciy tontu mooy damay dénk sénégalais yi ñaari baat bépp sénégalais boo toogal rek mu naan la waaye day jënd disque d'or bu la taxi rombee arrêté ko te yóbbu fànn. waaw loolu moom man maa la jox ndigal ndax wéré di moom mënta weesu loolu dama ne sénégalais boo toogal moo la disque doo dañ koy jënd bu la teg si rombee arrêté ko te yóbbu faan xam ne wérul ndax bu dee man mii maa dem Angleterre récupéré fa 20 millions CFA ñëw album bi génn mënu maa gis seede man. ci ay alalu jàmbur ay xaalisu gambien yoo xam ne dañ ko yëkkati jox ma na ma demal nga jëndal ñu ay seede ñëw ñu yóbbante suñuy askan ak suñuy cosaan ak suñu waa dëkk ak suñuy entreprise ma jël seen xaalis wàcc France di war seede gisuma ko kon tey ku taxaw na la risque loolu dañ koy jënd rek mi ngi jaaxaan di saw te jaaxaan saw balaa kenn di tooy yaay njëkk tooy mbokk yi ma leeral leen ne tubaab bi léppam da ko teg ci yoon Omaro moo yàqamti li waral ma ne Omaro moo yàqamti mooy Omaro moo am cofeel ak mbëggeel goo xam ne ci président Wally Ballago Seck jàppoon na ni album bi bu génnee la 6 moom la 10 day jot ci disque d'or bi loolu Omar la loolu Omar la ci cofeelam Omar la ci yëg-yëgam Omar la ci yéeneem Omar la ci bëgg-bëggam waaye tubaab bi doxewul noonu tubaab bi léppam da koy teg ci yoon léppam da koy teg ci yoon traçabilité moo ñor tubaab bi tubaab bi ay CD yu ñu jënd yuñ yu ñor ko xam ko ñor traçabilité mooy lan mbir mi na jaar fi mu war a jaar nit ñi xam ne kat affaire bi nit ñi dem nañu taxaw ci fana gi jël seen i carte jënd ko wala boog def nañ seen i précommande wala seeni komande ci internet bi ñu livrer leen ko benn nit mënul jënd plus de cinq CD ci benn fan mënul nekk kon de képp ku la bi disque d'or dañ koy jënd mi ngi lay nax mi ngi nax boppam parce que yow bu fekkee da ngay yor un million te mënoo dépasser cinq par jour mais foo jëndee disque d'or dañu waxante dëgg un million da nga koy yor mu ne sa poche nga yéene ko waali million cent cinquante CD CD beneen bi ne 10 euros lay nga ko président bëgg nga ko jàppale te yàlla tax mais mënoo cay weesu 5 CD mais 5 CD par jour nga fi mën a nekk di toog di ko xaar ba 1 million 500 yi jeex wala 1 million yi jeex mënul nekk kon tey ñi nga xam ne ñooy wax naan album bi disque d'or dañ koy jënd ñi ngi nax seen bopp disque d'or kenn mënu ko jënd disque d'or lu ñuy liggéey la te liggéey la boo xam ne du lu ñuy yàqamti du lu ñuy parax-paraxee du lu ñuy sorxo sorxo looy génnee la bàyyi ko ci marché bi topp sa communication topp si stratégie de campagne def li nga war a def wax li nga war a wax la nga des nga bàyyi ko ci loxo tubaab bi tubaab bi doful ay jënd mbaju ko ay robot ñooy suivre vente yi dama bëgg ngeen déglu baax li may wax Samba Ndiaye toogul jàll téeméeri CD naan aywa CD aywa CD ñëw nañ jënd ñëw nañ jënd loolu amul France robot ya ngay dem def sa commande ñu activer ko dóor ko ci machine yi mu dal ci ko tubaab bi mu livré la ko bu tubaab bi paree nag ay robot ñooy taxaw wàññi vente yi benn par benn dañuy tàmbalee ci un deux trois quatre ba cinquante mille mu leer nañ yoo xam ne du am pirate du am trafic du am dóor du am luxum mbuuj parce que ku yor xelam mën naa toog di compter di nelaw dañuy waxante dëgg ku yor xelam mën naa toog di compter di nelaw kooku mën naa juum mais ab robot boo xam ne dañ koy defar uniquement pour muy wàññi kooku na leneen lu dul di di juum wala muy nelaw wala muy def loo xam ne wax dëgg yàlla dana lal dara yi lux mbuuj kon tey rafet lañ jot ci xam ne disque d'or lu ñu liggéey la liggéey nañu bàyyi nañ projet bi ci marché bi ñoo ngi toog di xaar yàlla ñoo ngi toog di xaar soppe yi te rafet nañ njort ne fii vente bi toll ci niveau bi ñu ko teg balaa weer yu néew yii ci suñu kanam disque bi danoon fekk Sénégal mais du ñu ñu nekk ñu ci lañu ñu war a ne mooy nekk ci suñu liggéey te bàyyi tubaab bi mu nekk ci liggéeyam tubaab bi muy suivre vente yi ba keroog mu naan nangu naa jébbalu disque bi

góorgóorlu lu lu sunu bàyyi daan def ci vingt cinq ans de carrière muy album international sunu bàyyi dañ daan def fii vingt cinq ans de carrière trente ans doog am album international te ñu ko ci am boo leen wàññee motuñu juróom président Wally Ballago Seck di xale bu ndaw def treize ans de carrière am album international c'est à saluer dama ne lii buñ ci amul benn raaye ñaanuñu ko yàlla te ñu ko am incha allah waaye dama ne sortie bi rek sak la ci ñun 6 octobre ñu ne Wally Ballago Seck génne na album international c'est une fierté pour toute l'Afrique kon ñun tànnal na leen loolu di ne fi kompaloo kay dafi yëf ak di wax wax yi dañoo mën a yaakaar léegi dañoo mën a njort léegi dañoo mën jàpp lii yooyu wax yi amul lu ñu def la ñu toog teg la seen i tànk teg seen lool ak deuxième di ko wax waaye ñun li ñu war ñu ngi ci muy liggéey alors Omaro euh, liggéey bi au niveau national tamit lan lay doon parce que gis nañ leen da ngeen gën a concentré wu au niveau international te fu mu toll nii ñëpp xam ni sénégalais yi la plupart mbalax bi lañ tàmm di déglu te boo gisee album Wally Seck bi I wanna be free euh, mun nañ wax ni am na langue yu bëri français anglais yëpp a ngi si biir te sénégalais tàmmuñ loolu hmm. donc liggéey bi au niveau national na lay demee rawatina Dakar waaye surtout tamit si région bi waaw ni muy demee moom yomb na mooy ñu xam ni dañu ne album international président yaakaar naa ne son excellence amatul lu muy prouver au niveau national toutes les grande salles yi fii ci Sénégal président Waly def na ko guichet fermé yamul ci guichet fermé day teg la ñetti fan di fa joué fekkee ngeen ko jël ngeen seen i caméra ak seen i micro ñëw ca ñaari fan di ko joué ci benn salle di ko def guichet fermé ñetti fan da koy teg la di ko joué ci benn salle di ko def guichet fermé man laay fam ak man wayam ak man musique am bu neex amul sénégalais bu koy nattable waaye dama ne

yokk ci wàllu culture a traver la musique Wizkid bay na boor ah daju Diamond mais ñooñu tey bu seen dëkk nekkoon ci 5 pour cent avant ñoo feeñ tey seen dëkk mi ngi ci 5 pour cent grâce à ndax jëleen nañ seen drapeau réew ci un yóbbu ko ci 10 kon tey ñun loolu la ñuy xaar ci président bala Ballago sekk mooy ñun sénégalais yëpp ñu boot parce que lii nag du affaire de Faramareen du affaire de fans Walié du affaire de Baye Walié affaire de Sénégal la président buy dem drapeau réew mi la lay yóbbaale kon ñun dafa war ci ñun ñun ñëpp ñu boole suñu xalaat boole sunu doole boole suñu yëg-yëg boole suñu gis-gis jiital ko te jàppale ko ngir mu am ndam ci kanamu tubaab bi nit ña ngi di jàppale seen doomi réew ci Nigéria ñuy am ndam Togolais yi di ko jàppale seen doomi réew ñuy am ndam Ghanéens di ko jàppale seen doomu réew ñu am ndam waa nag rek raay ngir yàlla rafet na ci ñun sénégalais ñu jàppale sunu doom ji mu jëli ndam li ci kanamu tubaab bi te jëli ndam li raaya da koy mandargal jëli ndam li raaya da koy mandargal mooy ñëw indi raaya day mandargal ne am nga ndam waaye la ñu ñor dëgg sax du raaya xam nga la moo ñor fexe way wi tasaaroo ci àddina ba ko xamul woon Sénégal xam senegal parce que nag président Wally fi mu ne dugg na nag fi mu ne nii ci cadre doon ambassadeur Sénégal au niveau international bu légal doonoon na ko bu yàgg ndax saa bu jugee Sénégal la jugal waaye fi mu ne nii nag da koo doon ci doon bu légal doon boo xam ne tubaab bi da koo reconnaître tubaab bi daa reconnaître ne balaa Ballago sekk mi ambassadeur la ci réew Sénégal jëm ci wàllu musique kon nag li war sénégalais yi mooy gannaaw suñu ambassadeur la te yàlla moo ko fi teg ñun ñu jàppale ko te li ñu koy jàppale mooy lu mu génnee ñu dem jënd ko lu mu génnee ñu dem dugg ci internet bi déglu ko fu mu wootee ñu wuyu ji ko. te loolu c'est valable pour tous les sénégalais ñu ci réew mi ak ñu nekk bitim réew kon ci loolu lay jaare di soññu sénégalais ci ñu bàyyi xel ci ni Wally doonatul Wally Grand Dakar doonatul Wally Tëngéej doonatul Wally Dakar doonatul Wally Thiès doonatul Wally Kolda Wally monde entier la monde entier nag bu ñuy jariñu ci moom ñun ñoo koy bu max jëbbal leen ko boo toggee si ceeb ba mu neex boo bëggee ñu jariñoo ko di nga woote na Baye Fall yi kaay leen xewlu ñun nag togg nañu Wally ñun waa Sénégal togg nañu Wally ba Wally neex na léegi ñun la war nag ñu jébbal ko bitim réew jébbal ko Ghana jébbal ko Togo jébbal ko Côte d'Ivoire jébbal ko euh, Amsterdam jégal ko yeneen dëkk yi ci àddina ngir ñu mën ko jariñoo foofu la liggéey bi toll. alors euh, ñu gis album bi nga xam ne ni génne na ko bi nga xam ne ni invité na si mu nekk ay artistes international mais dañu hmm. gis ni invité ku su mel ni suñu papa Youssou Ndour est ce que jàppoon ne peut être na gën a facilité album bi Sénégalais yi at na gën koo xam mu daal di si invité ku su nga ci wax nii. lii nga ci wax nii lii la ci waal yi bañ ba waral du ko ci invité lii nga ci wax nii la ciy bañ est-ce que dégg nga ma hmm. lii nga ci wax nii baatu facilité bi nga tudd ne bu ko ci invité woon mu yombalal ko waali góor la góor da ngay am fit da ngay am jom da am ngor takk sa ndigg dem wuti góor lu yaakaar góor góor du topp góor damay def album naa ci invité Youssou Ndour ndax mu ko ci invité il international tubaab bi dinañ ko daw jënd bu ko waale defoon du ma ko waxal dama koy bàyyi bu ko defoon dootul dégg la ci jóg diggéen mbaay joor démb diggéen mbaay daagu daagu diggéen mbaay démb sëg diggéen dootu ko dégg ndax damay xam ne kii du buur bu nu war a jiin as gor da ngay takk sa fit takk sa ndiggu xuus jàll kenn waru laa jàllale bu amee bu amee bu amee tey yëg-yëg nekk Sénégal fii bëgg def dara ak baayam non da koy invité dem fekk ko ci studio am ñu def ko mhm. mais nag di ko def parce que lan dama bëgg tubaab bi xam ma bu ko defee rek wàcc aw yoon. d'accord actuellement mën nañu xam lan mooy prochain étape bu album bi nga xam ne nag moom ngeen génne woon foofu au niveau international. Mhm. waaw fi mu ne nii démb lañu mujjee def suñ li nga xam ne mooy suñu showcase séance de dédicace def nañ ko démb. ñu ngi ko def ci champs yi Paris yaakaar naa ne yéen ñëpp jot ngeen ci vidéo yi yi nga xam ne tey ñu ak tubaab yi ku xool sama statut di nga gis vidéo mhm. naar yi ñëpp ñëw war président di way di fecc di wane seen mbégte ci album bi. mu leen di signal ci seen CD yi démb loolu moo doonoon suñu dernier programme ca France. tëj nañu ko fii may wax ak yow staff bi tàmbali nañu ñibbi si. ku ci mel ni man Bijou Ngoné Youssou Dieng ñëw nañu tey bàyyi nañ fa Baye Zal bàyyi nañ fa ki nga xam ne mooy président Waly Ballago Seck bàyyi nañ fa ki nga xam ne mooy tubarkalla macha allah premier ministre Njagoro ba bàyyi fa Farili bàyyi fa monsieur le ministre Metshop bàyyi fa ambassadeur des États-Unis ñaaxarañ loo ñoo ngi ñëw ñoom it ànd ak président dellu si Sénégal ngir ñu wéyal suñu liggéey balaa ñooñu di ñëw man may ñëw ku ci mel ni toos Pape Mbaye Gueye ñëw na moom ku ci mel ni Paco moo Mbaye it ñibbisi na kon nag yaakaar naa ne liggéey bi fi mu ne nii li ñu waroon ci sorti album def nañ ko bare léegi na xam fu ñu toll phase de la communication de l' album avec des tournées internationaux fii may wax ak tubaab bi kale na trente dat Sénégal moom nañu waajal te xam ne li ñuy bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg waali waali toll na nag ci jamono joo xam ne fu mu jaar ñu namm ko doonatul moom déedéet doonatul waali jamono dox ba yegg si foofu ci waali fu nu jaar namm ko ndax fi mu ne tubaab bi kale na trente dates yoo xam ne Guinée lay doore yéen a ngi may dégg bu baax. Mm-hmm. Guinée la date yi di doore Guinée. ban Afrique ñi ngi ci ñi ci tubaab bi mi ngi ciy liggéey ak estaaf bi. mi ngi ci liggéey ak président xam naa ne incha allahu rabbi bu yàlla defee li gën bu ñu reyee ñaari weer yi des ci at bi rek boo maytul d'ici décembre jàpp début janvier tournée bi dana tàmbali ndax mi ngi ci programme bi tubaab baa ngi ci liggéey bi moo waral gars yi di ñibbisi concentré wu ñoom it ci liggéey bi fii au niveau national ba tubaab bi pare woowaat ñu ñu delluwaat ca moom ngir ànd ak moom wéer liggéey bi au niveau international mais dañuy tàmbalee Afrique parce que bu ñu nee international mais sous région bi ci lañ bokk da war nañu dem Guinée war nañ dem Bénin war nañ dem Côte d'Ivoire war nañ dem Tanzanie war nañ dem fa nga xam ne mooy Éthiopie war nañ dem Nigéria juróomi dëkk yooyu ci Afrique danañu fa teew ànd ak tubaab bi def ay festival xool fa ay salle mythique joué fa mais suñu programme yi day wuuteeg programme ya woon parce que programme ya woon dañ ko daan tëgg di ko togg ci ñetti weer ngir lan saalu vingt mille places la vingt cinq mille places trente mille places ou yii duna demee yii phase de promotion la pour jaay tubaab bi album bi ay salles yu 200 places lay doon 300 places 400 places salles yi ci gën a rëy 500 places lay doon parce que jubluwuñ ci guichet fermé jubluwuñ ci mbooloo mu bari liñ ci jublu mooy mbooloo qualité ndax nag da ngay am fooy toll ci sa liggéey qualité da lay gënal quantité te président Wally foofu la toll ci liggéeyam mbooloo qualité mooy mbooloo moo xam ne ay kilifa la ñuy doon ay responsable ay nit ñu mature ay nit ñu xam musique ñëw toog tegle seen i tànk doon nombre bu restreint nga wayal leen bégal leen ñu am lu ñu découvrir ci yow topp la foofu nag waaw xaaral ma yeggal li foofu nag foofu la ñu jëm ak fi nga xam ne mooy président Wally Ballago Seck ak tubaab bi ci li nga xam ne mooy deuxième état bu topp liggéey album bi mooy phase de promotion envers l'Afrique phase de promotion envers Europe ak Amérique waaye boole ko ay tournées yu am solo yoo xam ne yaakaar naa ne bu calendrier bi génnee ba président jug ba mafia topp ko délégation bi jug tubarkalla orchestre bu jug yaakaar naa ne bu néew ba néew danañ toog ñetti weer jàpp juróom benn weer yoo xam ne duñ teg suñu tànk Sénégal ngir tournée mondial la ñuy def dañuy wër àddina. effectivement amul daan gis bu Wally Seck bu def ay tournée côté côté côté te foofu te ne ils sont bien connus la Wally Seck dara impressionné xam te moom mooy waa sous région parce que Wally chaque fois ki s'est tourné c'était par France Italie et cetera. comment Wally nar a parvenir. pour mën a charmer ñi nga xam te moom mooy. waaw sous région boobu ngay wax seeni doomi dëkk ña nga fa bëgg président Wally waaye ay sénégalais nga fa bëgg président waali ba amuñ ci moom sagatu ñu ko gis ñooñu tey ku ci président wu fekk ji tey da koy wuy si kum ci fekk ji fu mu la woo di ko wuy ji di nga ñëw loolu amul xaar ma dem ak xaar ma ñëw kon tey yaakaar naa ne du ci am président mu jug dem Gambie mooy yem mu jug dem Bénin mooy yem mu jug dem Ghana mooy yam mu jug dem Nigéria parce que lan africain ya nga fay fekk bàyyi nañ la xel bëgg nañu lo waaye nag tubarkàlla macha allah ñi nga fay ñi nga fay ñi nga fay ñi nga fay eh, gars yi ab dégloo ab dégloo eh, eh, africain ya nga fay fekk it ak sénégalais yaa nga fay fekk sopp nañu la bëgg nañ la te boo wootee ñu wis la